c'est vrai communauté bu nekk day am ay différence loolu sax d'ailleurs mooy mooy l'intérêt de la vie bu fekkoon ne woon unanimisme rek la sens de la victoire mais surtout nag communauté bu toll nii eh,

war ko revendiquer ci yoon mais am na ñi nga xam ne nag def nañu travail bi nga xam ne il faut que féliciter leen vraiment le comité d'organisation bi nga xam ni jalcaw laay moo ko présider def na liggéey bu am solo loolu importance moom nag yaa danaa dem ci ay réunion gis naa euh, activité bi mu ci def ñaari nit nañ encadré ko muy surtout euh, euh, Baye Mor Laye ak Baye Seydi Sarr mu nekk sama wet def nañu un travail exceptionnel nga xam pour réussite bi mën a am ak l'équipe technique l'audiovisuel mais moo tax ma ne li xew tey ce matin révolution la révolution la c'est et ça va ko jaar waxee léegi ay pistes yu mag lay indi parce que nan

liggéey bi ngeen def restitution bi restitution bu am bu am solo la dinañ ci def suivi bi war ni ko war a jot dinañ ko war a dinañ ko jot mais duñu toog rek def benn kii bàyyi c'est un programme qu'on va respecter